Thank you. toujours dans votre acte du jour de ce 7 octobre 2024 suñ fa jógee dañuy dem ci li nga xamante la guerre des chiffres ginnaw nak bi nga xamante amna ay chiffres ñu annoncé jëmale ko dal ci finances publiques ak bor bi nga xamante Sénégal daf ko yor muy Sénégal et sa présumée dette cachée manam présumée, manam lo xamante dal présumée dette cachée la li di FMI dal dafa annoncé li nga xamante dal moy APM jëmale ko dal ci état bi ginnaw FMI dafa soutenir actuellement li du gouvernement sénégalais jëmale ko dal ci ben processus d'audit bo boo dafa nek en profondeur jaarale ko ci li nga xamante dal mën nañ ko jappé dette publique jëmele ko dal ci benn bi bo xamante mën na clarifier li di situation financière du pays ba nopi améliorer les loo transparence le qui di Julie Kozak di porte-parole institution bi mo joxé information bi le 4 octobre ci kuuru benn intervention bo xamante dañ ko relayer ci comptam bi di Twitter ginnaw loolu dal ñi ngi féliciter li nga xamante dal moy audit général des finances publiques jëmele ko ci Sénégal ginnaw bi ñu engagé jëm ci gouvernement bi nga xamante ak gouvernance bu solide indi transparence budgétaire autorité yi jëmale ko dal ci benn communiqué ay résultats préliminaires ci ay audits yo xamanteni ñom ñoom ci collaborer étroitement en ci ñi nga xamanteni moy semaine yi di pour ñu évaluer impact impact macroéconomique ba noppi daal di définir les plans xamante ni ay prochaines étapes mom le Julie Kozak dal di xamle ci intervention bi nga xamanteni dafa intervenir jaarale ko dal ci ben contexte bo xamanteni du dara lu nouvelle autorité sénégalais ñom ñoo relevé que l'existence de 2000 milliards de francs CFA ay bor la yoo xamante dañ ko nëbb jëmale ko dal ci comptabiliser ko ci ben rapport bo xamanteni bu weesu la muy ay chiffres yo xamanteni dañ ko relevé le ko dal ci nouveau ministre de l'économie qui kii di Abdourahmane Sarr ci ginnaw ben conférence de presse bo xamanteni dafa provoquer li nga xamanteni moy ben choc bu ñu souligner ay écart yu am importance ci gestion finance publique jëmale ko daal ci soufu gouvernement bi nga xamanteni mo fi jógee li di soutien FMI dafa relever wu dans le crucial notamment pour dimbale Sénégal mu restaurer li nga xamante ne crédibilité am ko dal ci li nga xamante ne daal ay investisseurs internationaux ginnaw nak bi nga xamante agence bi di Moody's dafa dégrader li nga xamante ne Sénégal jëmale ko ci BA3 ba B1 mu donne ci fin de semaine bi nga xamante lepp luy note souverain du pays nek na dal ci li nga xamante ne dafa wacc ba baax a baax mu indi ay tiitaange ay njàqare li ak ben montée rapide jëmale ko dal ci bor bi nga xamante ben capacité la bo xamante gouvernement bi dafa war honorer ay engagements financier ci lol dal Sénégal déjà entamé na plus réformes réforme économique pour stabiliser situation bi jëmale ko ci ay mesures yi nga figurer ci ben gestion de finances publiques indi ben réduction jaarle ko ci dépenses et une optimisation bi ay ressources fiscales la le ko dal ci ben collaboration bo xamanteni FMI dina ko def ak ay réformes yo xamanteni dafa viser pour que ñu delloosiwaat li nga xamanteni moy confiance jëmale ko dal ci marché bi ba noppi garantir ben environnement économique bo xamanteni mo gëna stable ci at yi ñu jëm ki ko xamle dal di ki nga xamanteni dal moy représentant FMI di Julie Kozak di porte-parole institution bi mo joxe information bi le 4 octobre.